nga xam ni moom laa jot a pour le moment pour mën ko jox jox ci comité départemental parce que tool nañ ci crise bi foo xam ni dara du doy lépp li nga xam ne dañ ko joxe rek war nañ mën a xalaataat joxewaat ko motax man au début ñi ngi ñëw pour joxe li nga xamni mom lañ fi am pour le moment di fas tamit ci yenen jamono tamit ñu ñëwaat indi indiwaat ko fi ci au niveau du comité départemental di rafetlu vraiment jotaay bi di nuy wa maire yi di nuy journalistes yi fi nek nepp je suis président du mouvement Alliance pour une nouvelle direction qui s'appelle ANDRE un mouvement citoyen qui est basé à Thiès et qui est créé depuis euh, depuis 2017 donc man suis docteur Djibril Sarr mais je suis thiessois j'habite à Thiès et je vote à Thiès. Votre appel à l'endroit des populations. des populations ñu respecter rek parce que le cas est très grave à l'heure où je vous parle parce que notre seul traitement actuellement c'est la chloroquine actuellement le Sénégal ne dispose que de 800 boîtes de chloroquine lo qui est ñu une semaine donc Sénégalais il faut ñu prise de conscience ci affaire traitement moy chloroquine te chloroquine bu doyul 800 boîtes 800 boîtes durer une semaine parce que société bi chloroquine il y a trois mois dafa am ay problème parce que tunisien euh, Tunisiens

li may wax mesure yi may wax ni ñi ñëpp war nañ ko jël rawatina encore waa Thiès parce que Thiès li ci gën a grave mooy am na ay cas communautaire te cas communautaire moom mooy cas boo xam ne kenn xamul fu mu jógee moo tax nit ñu nekk war nañu gën a jël seen matuwaay toog seen biir kër yi jaratul sax léegi nit naan la toogal sa biir kër yaa war toog sa biir kër sàmm sa bopp sàmm sa njaboot ñëpp bu ñu ko defee rek je pense que virus bi dina fi jógee ci lu mu a gaawee di ñaanal ñëpp jàmm Djibril Sarr euh, di doomu Thiès di xarit di soppe euh, di kenn ci ñun di nit koo xam ne lu daara xewloo ci cees kenn du ko jiru lu këru dina xelu Thiès kenn ko jiitu moo tax bi muy def action bi nga xam ni yàllaa ko digle mooy taawanu alal birri wa taqwa mooy dimbalante ci ci lu baax euh, woo ñu ci ñu ñu wettali ko ci euh, ñu bég ci loolu nag ndax moom nit la koo xam ni lépp lu xew cees soo ko lambee daj ko ca bëkki dem rek bi fi Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacké porte-parole xalifa général di ñëw euh, moo ko teeru at ma jotit bu ñu dem gànnaar dañuy jaar ci pharmacie am ca géewul taxaw fa ñaanal ko fa kon nag wëlëre la soppe xarit la yàlla def préfet bi ñu fi fekkit di kenn ci ñun ndax bi ñuy waajal ubbi Masaalikul Jinaan man ak moom ak docteur Khadim Sylla la Cheikh Bass boole pour ñu euh, taxawal kii di nga xam ne mooy lëkkale fondation Khadim Masaalikul Jinaan ba nga xam ne bagage yi ñuy dugale Masaalikul Jinaan yëpp ak yi ñu koy liggéey dañu koy exonéré boobu moom mi ngi man la ma ni fàtte waaye ñoo bokkoon di liggéey man ak yow Khadim ci kayit yooyu kon moom bi ñu fekkee dañ ciy bëgg lool ñaan yàlla aussi li nga xam ne yàlla wàcce na ko ci àdduna bi muy balaa yàlla génn bi rawatina réew mi nga xam ne mooy réewu Sénégal te réewum ñaan la réewum lislaam la réewum nit ñu baax la yàlla na yàlla def jàmm docteur yi li mu ci def yëpp yàlla na ko yàlla def yiw defal ko ko ko ko koy gën a mën ko gën a mën a fekk insha allah wasalaamaaleykum kàddu nuyoo lay doon kàddu mbégte kàddu rafetlu teewaay bi ñu fi teew tey te monsieur Sarr waral ko nekk doomu Thiès fekk baax cees di certainement pour baaxit fekk ko fi motax euh, may rafetlu euh, deg bi nga xamni deg président de la république deg ko également deg askanu ties communauté bu ties ga sax ties mi mais dafa sentir ni fi ñu toll contexte bi ñu toll mu nek contexte guerre mu xelam munul dal munul teud nelaw tank yegul bopam ci bi euh, fibre patriotique moko xëc indi ko ci comité départemental de gestion des épidémies mu tew fi tay indi participation nek participation bo xamni ni participation bu am solo la ndax bu nu nekké ci guerre ci niñ ko mën a munition du doy ndax kiñ ko séqal ennemi bu titulé bu dëgër bop la donc luñu mobiliser wu doyul luñu and rek doyul lu ñu doyul lolou motax euh ma rafetlu vraiment sa taxaway sa dégg bi nga dégg véritablement préoccupation ak appel aux autorités loolu au nom en tout cas du comité départemental mangi ngi la ci gërëm di la ci sante ñëw nga japp nga ci bi te fi nga japp également fofu le gëna baxé ndax euh, andi nga fi ay produits yo xamni ni mom moy euh, virus ndax dag ñoo wo ci ciép mais également nga andi fi ay jumtukaay ay xéewal Yo xamni ni dina mëna dimbali suñu mbokku taalibe yi nga xam ni ñi ngi leen confiné ci daara yi pour ñu mën ko xéewloo ndax xeex bi dañoo war a jouer ci levier yu bari levier yu jëm ci ay lave-mains détergent et cetera loolu moom dafa am solo parce que dañuy aseptiser yëpp mais nag ñi nga xam dañ leen wax ñu toog seen kër wax dëgg yàlla pour ñu bañ confinement bi xaw a nuroog prison mu xaw mel ne luy diis ñu leen fay fekk ak euh, yu mel nii defe naa ni dina ci am solo yow nag vraiment euh, déggee nga ko noonu defe nga ko noonu vraiment ñi ngi la ci gëreum di la ci sante di ñaan également vraiment au nom du comité yalla yok sa wërseuk vraiment gëna a sa taxaway nga xamni li nga def askan mi nga ko defal mais également sa bop nga ko defal